biotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci matu matu yoo am na booy piis ci rido ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé dal li nag jàmm ministère de la santé et de l'action sociale lancé na démb ab programme bu ñu duppee ADOS muy programme boo xam ne li ko yëkkati mooy jàppale ndaw ñi ci seen wàllu wér-gu-yaram laaleeg sëy ak it lu ñu duppee violence basée sur le genre projet bi nag Affaires mondiales Canada ak CRDI di centre de recherche pour le développement international ñoo ko financé ngir jàppale nguurug Sénégal ci li nga xam ne jot na ko def ci cible ndaw ñooñu le nga xam ne dañu Doucouré di directeur de la santé de la mère et de l'enfant lu ñuy wax la cible adolescente maanaam li nga xam dañu am fukki at ba ñaar fukki at ak ñaant ñoom ñu ngi ci pour cent de la population sénégalaise ñoom nag dañu lu ñuy wax cible vulnérable maanaam dañu euh, fragile ci yenn situation yi et nemmeeku nañu am nañu ay yenn difficulté maanaam accès à l'information waaye aussi accès à des services de santé adapté mais loolu aussi il faut dire que gouvernement du Sénégal na moom conscient ne effectivement il faut ñu agir si cette cible là suñu bëggee am yeneen indicateur impact comme mortalité maternelle ñu wàññeeku parce que cible jeune boobu boo gisee cible jeune boobu mortalité maternelle lu leen faral di euh, di dal la donc ça veut dire quoi ça veut dire que suñu suñu bëggee vraiment réduire aussi la mortalité maternelle il faut que ñu agir de façon efficiente et efficace sur si loolu cible jeune ñun def nañ ko suñu politique yëpp waaye aussi am na lu nga xam ne li ñu def def def ba léegi am na lu def donc projet bi dafa am solo parce que ñu dañuy wax administrateur de programme te booy de programme baax na aussi ngay am léeg-léeg ay données nouvelle ay données probantes li nga xam ne dina man tax nga jubbante ko sa programme sa stratégie donc programme euh, projet bi loolu lay andi donc projet bi projet de recherche te ñu koy def ay euh, chercheurs ay ce qu'on appelle waaye aussi li ma si gën a neex mooy dañu jox parole au jeunes. donc euh, am na projet yoo xam ne au niveau jeune local au niveau national la waaye aussi au niveau local donc dañuy développer ay thèmes de recherche ay projet de recherche xool la pourquoi mais li si gën a am solo li ñuy wax li anglais di wax so what et après donc après bi mooy lan ñun en tant que décideur war nañ jël données yooyu pour mën a gën a euh, jubbanti. pour gën a gën mooy yëgle ne gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllu vaccin yi xeex choléra groupe internationale de coordination di bànqaas bi nga xam ne mooy càmbar lépp lu aju ci wàllu vaccin ak yu ni dafa ajandi schéma vaccinal bi nga xam ne moom la ñu digle ci xeex yenn feebar yi nga xam ne dañu koy woowe flambée ba naka noonu kenn joxeetul ñaari dose yu ñu doon tegtal waaye benn. coppite boobu nag ab pexe la ngir utiliser yenn dose vaccin yi ci lu ëpp ci réew yi waaye nag mu ngi amee ci jamono joo xam ne dañuy nemmeeku lim bu takku ci wàllante gi am ci feebaru choléra ci àdduna si bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm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 Bonjour chers auditeurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé hier un programme dénommé ADOS qui vise l'amélioration de la santé de la reproduction en prenant en compte les violences basées sur le projet financé par Affaires mondiales Canada et le Centre de recherche pour le développement international vient appuyer les efforts de l'État la cible jeune toujours vulnérable, selon le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, Dr Amadou Doucouré. La cible jeune adolescente qui constitue 32 pour cent de la population sénégalaise, est confrontée à d'énormes problèmes. On peut citer la difficulté de l'accès à l'information, mais aussi la difficulté d'accéder de, à des services de santé adaptés. En plus de cela, ils sont, elles sont victimes de certaines euh, violences qu'on appelle violences basées sur, le genre, comme le viol, le mariage précoce. Mais vous savez aussi, le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière à cette à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi à travers d'autres secteurs ministère de la Jeunesse, le de la Femme, de la Famille et des Droits des Enfants. Et la cible jeune est prise en compte dans nos différents documents politiques, que sont le plan national de développement sanitaire 2019-2028, mais aussi les différents plans SRMENIA. E Mais malgré la mise en œuvre de tous ces plans, des défis encore existent. Et l'objectif de ce projet, c'est un projet qui est extrêmement innovant car elle permet de développer, de développer la recherche action participative pour avoir des données de qualité en vue de mieux asseoir nos politiques destinées à la santé des adolescents. Donc c'est un projet innovant qui va intervenir dans dix régions du Sénégal et qui sera mise en œuvre par cinq instituts de recherche extrêmement importants, mais aussi il y a ce qu'on appelle des projets de recherche jeunes au niveau national, mais aussi au niveau local, qui, à travers, durant ces cinq ans, vont contribuer à générer des données évidentes qui vont vraiment permettre d'avoir une bonne politique sanitaire en compte, prenant en compte les adolescents. L'OMS informe qu'en raison des tensions sur les approvisionnements mondiaux en vaccins anticolériques, le groupe international de coordination, l'organisme qui gère les approvisionnements d'urgence en vaccins, a dû temporairement suspendre le schéma vaccinal habituel à deux doses dans le cadre de campagnes de riposte au, au flambé. Une seule dose est actuellement administrée. Ce changement de stratégie permettra d'utiliser les doses dans un plus grand